ki nga xam ne yéen ñuy seetaan euh, ci seen Senejet seen émission bi nga xam ne mooy euh, grand public ñu koy amal ayu bés jot di ci dalal ñoo xam ne dañu yëngu ci wàllu politique wala ñoo xam ne seen xam-xam dafay màcc jëm ci wàllu politique tey ñoo am mbégte bu yaatu di dalal madame Mbacké muy euh, directrice bu SEDAF nekk responsable politique APR bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar ci département de Mbacké plus précisément fii nga xam ne moom mooy Touba. tey nag ñëw fas yéene séq ak moom waxtaan ci lu baree bari lu jëm ci élection yi ñu jëm. lu jëm ci li nga xamante si nii mooy liggéey bi nga xam ne mu ngi koy amal ak jigéen ñi nekk ci département bi ak yeneen yoo xamante si nii dinañ ko laltaayee waxtaan wi mooy taxawaay bi nga xam ne madame Mbacke am na ko ci coalition bi ak ci département bu Mbacke madame Mbacke maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoog ñi ñuy seetaan. waaw ah, jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen sant di rafet lu jataay bi di leen jox seen wàccuwaay bi leen yàlla jox. di ñaan rek émission bi ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim te lu ñu fi wax rek muy ngëneel ci askan wi ndax ñun askan rek moo ñor. Euh, waxtaan wi fi ñu koy dooree mooy euh, fi jamono ji tollool muy élection législative yi gannaaw boo lay doon yaa ngi bokk ci coalition benn bokk yaakaar yéen yi woon ci campagne bi boo ñu doon wax fan yi nga xam ne jot ngeen ko nekk ci campagne bi lan lañ ci mën a jàpp. bu nu yéene woon ci campagne bi campagne bi jeexagul tey lay jeex à wi waaw mais jeexagul ñu ngi ci man mm. terrain laa jógee léegi nii ci mm. terrain bi laay delluwaat mm. ñu ngi ci campagne bi effectivement euh, ñun euh, ñu ngi bokk ci euh, appaire ci coalition benn Bokk Yaakaar di liggéey di campagne ñu am ay list yoo xam ni yu bëri la defe naa huit liste la mais bi ñu intéressé mooy suñu liste muy euh, suñu tête de liste di Galas ñu commencé campagne bi boobu ba léegi wàcceguñu terrain bi li ñu nekk nag mooy euh, foo dem rek partout yaa ngi gis euh, responsable yi ku nekk yaa ngi dugg sa koñ yaa ngi dugg ci département bi laay wax ñun ñi ñuy concerne muy Touba Mosquée parce que ñun Touba Mosquée lañu dëkk ñu ngi ciy def lu ñu mën ak lu ñu mënul pour cet fois si ñu gagné élection yi. Mm-hmm. mu mel nit élection yi daf leen euh, yitteel lool donte élection yëpp moo leen yitteel mais élection yii moom dañu gis ni que coalition benn Bokk Yaakaar def ci dema dema dem ba jeex lan moo waral taxawaay bu dëgër bi nga xam ne am ngeen ko ci. taxawaay bi dëgër bi ñu am ñaari mbir la benn bi élection yi jàll législative yi jàll 2017 euh, bi da lay leer ni dafa am ay député yu ñu fi tegoon yu dëkk fii ci département bi muy cinq député yoo xam ne ni tey jii posé naa question ñu bari bi ma demee boo leen doon laaj tey jii duñu xam sax député yi ñaata lañu yow mii sax en tant que journaliste soo moytuwul sax xamoo député yi fi nekkoon. <laughs> parce que non dama lay tooñ rek. Mhm. mais askan wi xamuñu député yi. Mhm. Euh, dama leen tey ku ma jox ñaari député rek mhm. ma wax la ma neexal la mais xam nga ni député yooyu fi nekkoon liggéey lu ñu askan wi kon askan wi ñoru leen woon te pourtant ñoom chaque fin de mois ñu ngi fayeeku ñu ngi am seen ay faveur ci assemblée nationale te population bi centre ñu seen bopp. beneen bi ñu nekk su président Macky Sall mu am liggéey bu yu am solo yu mu sumb ci euh, réew mi. Euh, te liggéey boobu pour mu matale ko ndax mu ngi ci yoon bu baax macha allah il faut mu am une majorité à l' nationale. parce que ku xam rôle député xam rôle bi muy joué sur le plan exécutif. sur le plan du développement d'un pays. kon il faut ñu jox président majorité. président moom am majorité au niveau national kenn werante wu ko. mais li tax ñun waa Touba ñu engagé wu ci naka jekk daan nañ ci engagé wu. mais détermination bi comme ni nga ko waxee ni ñu ci amee cette fois-ci dañoo bëgg am ndam au niveau de département de Mbacké. Mm-hmm. waaw jafe-jafe yooyu ngay wax sax gis nañ si ñenn ñoo xam ne ñëw nañ ci yéen lu ci mel ne Serigne Cheikh ak euh, ma Diop ñooñu moom defe naa ne ñu ngi ci coalition bi euh, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mu ngi ci coalition bi nga xam ne mooy intercoalition Yewwi ak euh, Wallu waaye teewul ba léegi da ngay gis ci biir coalition benn Bokk Yaakaar tu ne pas rose da ngay gis ni ñii nii am na ay jafe-jafe yu ñuy jànkoonteel seen biir ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy leader yi ba ci investiture yi ba jamono ji ñu toll ci campagne bi da ngay am ñu jaar ne dafa mel ne daal ku si nekk da ngay bëgg a wane sa bopp lu waral loolu. mais politique da wane sa bopp mais jafe-jafe ñun amuñu ko suñu biir est-ce que investiture yi dégg nga kenn ko taxaw kenn ku taxaw. ni d'accord ma ci liste bi au niveau de la coalition benn bokk yaakaar amul. Euh, ñee nga wax léegi député yi nga wax léegi ñëw ci ñun. tudd nga léegi Cheikh Abdou. Euh, sëñ Cheikh. Mm-hmm. sëñ Cheikh ku ko xam-xam ni PDS pur et dur la. bu dem ba nekk président groupe parlementaire ñoo jàkkaarlooy kër sama xarit lañ. Euh, mais xam na ni gisul boppam ci politique bi te moom moo taxaw publiquement ni président li mu fi def kenn mosu ko fee def moo ko wax mi ngi koy wax kon moom <laughs> dafa rëccu ci la mu nekkoon moo ko wax. Euh, am na beneen député boo tudd léegi. honorable Fatma Diop sama mag sama xarit ku nekk xam nga ni kooku daam de fer la. kooku xaaru ba élection yi ñoom bu ñu jàppale si de local yi ku ne xam na ni mu ngi doon battre campagne mhm. ci kanamu wetu doomam DG euh, maire Gallo Ba mhm. kon kooku conviction la am parce que li mu wax dama ko gëm mhm. daf ni moom Mbàkke ñoo ko fal même su ko lis investiré su ko population Mbàkke voté dul woon du du dem kon population bi ko voteel ba tax mu nekk assemblée Fatma na ko xam-xam ni mu ngi joué son rôle au niveau de l' assemblée. man mi nekk CEDAF xam naa ci dara. ndax à chaque fois day ñëw ba ci man laaj ma lan ngeen soxla pour jigéen ñi jëm kanam. lan ngeen soxla pour liggéey liggéey te ni mu ko defee ci man xam naa noonu la ko defee ci yeneen service yi. Euh, kon kooku population bi ñor na ko. ñor bi mu ko ñor moo tax mu xam ne président ki sàll mi ngi liggéey mu dem ànd jeg moom di ko jàppale. kon euh, vraiment euh, gisuma benn tiraillement bu am ci entre les Euh, c'est vrai nag parce que di nga gis ñuy jaar ni ñuy jaar nii parce que dafa ay parti alliés yu fi nekk. ñooñu dañuy demal seen bopp politique. Touba ñu diviser ko en zone onze zone zone bu rekk man tey par exemple mais soog a ñëw léegi ñu ànd suñu waa zone dem ci gaaru routière bi dem ci marché bi di wax ak jaaykat yi di wax ak ñeneen ñi euh, il faut ñun tam ku nekk zone ba nga nekk nga dem fa mais xam nga ñun tam population Touba ni mu toll responsable yi fi nekk mun ñu def benn caravane rek di war a taxawal ci mbedd yi. Mm-hmm. kii terrain bi. ñu jaar ci terrain bi wax ak nit ñi loolu commencé nañ ko ab ah bien avant la campagne électorale mais campagne bi nag comme campagne la campagne parti da nga koy dundal. Hmm. ay activités mobilisation animation loolu la. Mm-hmm. ngeen di jàkkaarloo nag ak opposition boo xam ne bari nañ doole lool ku ma toogal si yéen dama ko koy uh, laaj uh, boo xam ne ñu ngi ciy tuddu Ousmane Sonko ñu bëgg ko lool maître laay Wade mook Touba ñëpp xam nañu diggante bu yàgg la ñu investir tamit ki nga xam ne moom mooy Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly boo demee Mbacké nga fekk Abdou Mbacké Ndaw muy opposition boo xam ne nag dañu taxaw temm pour amaat majorité fa nga xam ne mooy assemblée nationale bi la yoon sax taxawaay bi ñu bëgg mooy cohabitation boo leen dégg ñaan cohabitation par force naka nga gisee opposition boobu nekk ci département bi boppam ay parti ay individuel nga ma laaj. xam nga boo tuddee Abdou Mbacke Ndao mouvement la amoon bi muy ñëw ci ñun. nga tudd Cheikh Abdou. boo gis-gis la nekkoon yàggul dara mu tàggoo ak ki àndaloon ka ko defoon député. nga tuddaat keneen ti Sonko Sonko newu ci liste yi amul droit sax campagne. waaye mu ngi ci waaw coalition loolu seen ànd bu éphémère la ànd boo xam ni du yàgg. ndax yaa ngi dégg ay démission ñoo àndoon am doole ah. Euh, ab Abdoulaye wax dañ koy saluer suñu maam ju baax jooju kooku lu nekk ci président Macky Sall moo ko ci def te wax na ko ay tànkam la jaar. ba muy campagne en mille 2017 la xaw ma mu def ko directeur de campagne dégg nga li mu ko wax. kon te kooku mag la ànd xam-xam formé ko kon xam na ni ki mu choisiroon mu koy campagnal ba gañeel ko tey moom la yaa teg ci bopp réew mi. muy nit ku baax koo xam ne suñu président wax tuuti liggéey lu bari. Mhm. loolu lañ loolu lañ ñu jàngal. kon li nga wax opposition dama ne pratiquement opposition amul fi circonstance bu ñuy àndee rek la ndax Abdou Mbacke Ndaw euh, sama jarbaat boobu ku nekk xam na ne bi muy ñëw maire ñun la àndal. Mhm. te dafa mel ni ay frustré rek nga jël boole leen ndax man mënuma gëm nga taxaw te défendre bilan nit waar mi ngi fi mhm. défendre ko battre campagne ànd ak ñoom. ëlbatikuwaat ni liñ defoon dara baaxu ci kon bilan boobu yow comptable nga ci bilan boobu euh, te ñi nga wax léegi euh, euh, Ousmane Sonko moom moo yàq xale yi. ci lu wér. ndax Ousmane Sonko dugg na barki démb Touba est-ce que gis ngeen ko mu sukk ci benn kanamu sëriñ togg siyaar ko ci dëkku jàmbur fii titre foncier la est-ce que gis nga ko mu dem ci ka sëñ mu taxaa ziyaar ko wala dem sëñ Mbàkke Daba Sarr ziar ko wala mu dem ci bay ziar leen wala mu dem ci ñu santloo ziar leen lu tax ñu àndoon ak moom bàyyi ko ñoom Moussa mbay ñoom Pape màgget jaw et cetera et cetera damay lim rek tuuti pourquoi ñu bàyyi ko parce que dafa am lu mu leen doon gëmloo te loolu mu leen doon gëmloo ñoom dam nañu ci biir xam ne loolu nekkul dëgg mooy njëkk mooy mujj dafa am lu mu ki yoon ci xale yi xale yëpp amoon estime ci moom mais nee naa Sonko phénomène la mais phénomène bu éphémère lay doon te boo too toppee ñëpp naan Sonko Sonko Sonko xale yi am 10 ans 11 ans la. <laughs> mature ñu de mature ñu de duñu xale yu mature kon nag ñun ñi nga tudd léegi xaw ma ne opposition lañu ndax. Euh, opposition bi c'est vrai pourquoi ki doon xeex bi Macky Sall président euh, euh, Ablaye Wade demee monsieur Mbacké Bara Dolly téye parti bi ñëpp xam ne moo ko téye pour pourquoi mu bàyyi pourquoi jëndee ko doomu baayam xam nga loolu mooy jaxase famille. est-ce que narul ci position. non non xam nga mënoo nit mun a ànd ak Pape Diop Pape Diop daf ko député président Pape Diop daf ko député mu jikki-jikki génn formé fi boppam nga jël ku mu bokkal benn baay jox ko place ka nga waroon a jox xool dugg ci biir famille diviser ko la. dugg ci biir famille diviser ko la. mais sama gis-gis la. sama gis-gis laay wax ah mënu ma wax ko gis-gisu keneen mais li ma wax dama ko xam parce que famille lu koy suude moo gën lu koy yàq waaw loolu la kon nag Sonko il n'est pas candidat. tiitalul bi daal. tiitalul opposition. opposition bi tiitalu leen yéen. déedéet ñun xam nga ñun du ñu wax sax président bilan président Macky Sall ndax euh, lu ñu fàng kenn du ko jeex. Mm-hmm. président li mu def mi ngi ni fàng kenn du ko jeex mais ñu suñu candidat la ñuy jaay. sunu candidat yi nga xam ni Galas Kaltom le président euh, honorable Galas Kaltom nekkoon na fi euh, assemble da nga ko mës a dégg foofu mu xeex fa wala mu wax fa lu mu mënut a wax. Ah, parce que dafa doon absent doo xam nga ñun waa Touba dafa am lu ñu xamee. Mhm. mu yar ak teggin. ak loo mënti doon. Mhm. ak noo mënti sant. ak foo mënti bokk. Mhm. yar ak teggin mosu leen koo dégg ci coow wala mu wax dala pourtant soxna Astou sama njëkke sama xarit mi ngi assemblée est-ce que dégg ngeen ko ci mu def lu dul noonu. dama leen di laaj rek pourquoi yow nga nekk biir assemblée di xeex ak saaga ba bërki démb nga jël benn institution bu toll président Macky Sall wax ci moom loo xam ne après koo rëccu du jéggalu. yaa ngi ci Cheikh Abdou ah, moom laay wax di moom la. bañ demander ko ba may ko liberté provisoire est-ce que loolu rôle député la assemblée est-ce que pour xeex la war a pour xuloo kon nag ñun sunuy doom ñun ñoo war a xool nit ñi profil yi ñu teg assemblée mm-hmm. ñu xool. parce que amuñu dara lu ñu apporté Touba ñii Abdou Mbacke Ndaw nekk na maire ba jógee Mbacke dafa waa Mbacke jëlee ko fa. pourquoi waa Mbacke jëlee ko fa mu bëgg ñëw laaj daal suñu su su suñu suñu suñu suñu euh, député assemblée nationale non loolu département Mbacke duñ ko ko jox. xalaatuñ ko sax. Mhm. Euh, loolu day luñ doon dooree waxtaan wi la rek ñu ñëw nag ci madame Mbacké Sedaf ak li nga xam ne moom mooy financement yi ñuy dégg si euh, président Macky Sall def ko euh, ci département bi waaye man damay gis cooxaw ci bari lool bu yàggul dara seqoon nañ waxtaan ak ay jigéen ñoo xam ne ñu ngi bootu ci ginnaaw madame mbay ñu gis ni financement yooyu kat dañu gis jël rek jagleel ko ñaari jigéen na ñoom ñooy ay responsable ci Mbacké ku ci mel ne Fatma Diop ak Daba Diouf ba ñoom ñu meroon génn di naqar lu ni mel yéen leeral nga ñu mën a indil ci wàllu financement yooyu. a wax ñoom mi def ñu indi SEDAF jour ñu ko def ci mm-hmm. na le matin ñu indi SEDAF seen dossier ba dugal ko ba pare mm-hmm. ñaa ñooñu doon wax ma mm-hmm. suivre naa ko fekk na ñu indi seen dossier ba dugal ko ba pare moo tax wax ji jaaxal ma non dama leeral ji may indi ñoom li ñu tuddee femme leader ñu tuddee wuñ ko femme leader financement yi dafa ñëw mu am euh, au niveau de du département de Mbacké. Euh, ay femmes leaders femmes leaders yi ñuy wax ñun leader ku dégg anglais xam nga luy femme leader. Mm-hmm. moo ñuy porter projet yi. pas sur le plan politique. Mm-hmm. moo ñuy porté projet yi. Mm-hmm. dañ ni 14 communes rurales yi commune bu nekk dina fa am benn femme leader bu fa génnee koo xam ne moom mooy porté projet bi. yaa xam xam xam 19 projet la yaa xam ba xam 11 la yaa xam xam cinq la bu ñu demee dala ngaabu benn femme moo fa nekk porté projet bi. projet yëpp. est-ce que femme boobu mooy femme leader Dalla Ngabou non mais sur le technique. Hmm. technique laa lay wax. Euh, femme leader lañ ko tuddee parce que projet nekk développe Dalla Ngabou yëpp bu ñu paree boole ko ki nekk état lañ koy jox. Hmm. nga ñëw Taïf fekk fa ku wax Ndeye Sadiloo moom mooy femme leader bi. Hmm. Taïf euh, am nañu je ne sais pas def naa di set projet lañu am. 17 projet yooyu femme bi moo koy dajale. waxtaan ak ay jigéenam indi ko au niveau de SEDAF loolu mooy femme leader nga ñëw Mbacke Mbacke mi treize femmes lañ fa jël astafura trois femmes parce que li indi loolu dañ doon def réunion avec euh, le ministre de la femme de la famille du genre et de la protection des euh, enfants madame Ndeye Saly Diop Dieng bi nga xam ne mooy suñu ministère de tutelle def réunion ak jigéen ñëpp réunion bi ñu ko def panel honorable ma Mbaye mi ngi ci biir groupe bi. honorable Fatma Diop mi ngi ci biir groupe bi. Daba Diouf mi ngi ci biir group bi pour wax la maa Mbàkke. pourquoi madame mbay parce que dafa am ndomba tànk au conseiller la. pourquoi Fatma Diop dafa am ndomba tànk parce que député la. pour pourquoi Daba Diouf dafa am ndomba tànk parce que investi la sur la liste. Mm-hmm. ñooñu ñu jël def leen ci groupe panel bi. Mm-hmm. mais panel bi ci lañ doon waxtaanee ñun. 14 communes yi ak 16 femmes leaders yi nekk au niveau de Touba maske ak trois femmes yi nga xam ni ñoom ñoo nekk euh, Mbacké malheureusement bi ñu def euh, euh, réunion bi mhm. madame Mbacké madame Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàcc waayam mhm. ngi ci groupe bi mais bi ministre de la femme di wax ak ñu réagirul benn yoon mais est-ce que xel nangu na mhm. ki kii déglu réunion bi ba réunion bi jeex mu war a rendre compte jigéen ñi euh, euh, ñu jël ki nga xam ne fekkewul réunion bi assisté wu réagirul kooku lu muy wax ak jigéen ñi lan la lan la leen di wax te te Mbàkke ñoom ñett la ñu jël parce que dañu takk ay ndomba tànk boo leen ci réunion bi mais deux fem leaders la ñu am mooy deux femmes porteuses de projet mm-hmm. femme leader mooy femme yi xam ne ñoo porté projet yi mm-hmm. ñu am 83 projet projet au niveau de Mbàkke mais projet yi duñ ñu ñëw par individuel ku nekk di indi sa sa sa fiche da nga ko jox femme leader leader bi mooy femme porteuse de projet yi. femme yi nga xam ñoom la ñuy jox projet yi ñu indiwaat ko. mais Mbàkke deux la am ca kaw la jógee mais deux yooyu est-ce xel nangu nañu fekk réunion bi déglu discussion ak vis de la femme déglu ñeneen li ñuy wax ñu koy jox keneen koo xam ne assisté wu ci réunion bi loolu c'est ça le problème 83 projets yi ñëw. ñun suñu yoon nekku ci xamuñu ku ñu dugal ak ku ñu bàyyi. mais nombre de projets yi Mbàkke am 83 projet la projet bu nekk 500000 ñoo ñoo xam ne ñu koy tasaaree mais il faut mu am ñu ko porte ñaara ko porte parce que ñoo fekkee woon réunion bi muy honorable Fatma Diop ak ah, ah, ah, honorable Daba Diouf. ñu séddoo projet yi mais séddoo projet parce que maa ngi dégg seen wax ñu naan. dañu am kenn ki dafa am 41 projet kenn ki am 42 projet non non non projet yi dañu dugg ci jigéen ñi wax ak ñoom nee naa la léegi honorable madame Mbaye ñoom bi ñu def conférence fekk na seen projet ñu indi mais bu la joxee cinq projet moom lañ leen wax man xamuñu ko répartir mais moom kese am na cinq projet waaw cinq projet yooyu dugg na bi def seen bopp fekk na ñoom ñu dugal ko ba waa Dakar saisir ko seen machine xaw ma kan la parce que ñun dossier dañuy xool rek ba xam pièce d'identité yaa ngi fi ba xam numéro téléphone yaa ngi ci ñu jël dossier yóbbu. Mhm. waa Dakar sur le terrain si mi saisir ko ñoom bi ñuy wax fekk na saisir seen dossier ba dem na Dakar mais où est problème mais 41 projet du Daba Diouf moo am 42 projets ay nitu boppam déedéet daf ko tasaare ci biir dëkk bi du Fatma Diop moo am 41 projets ay nitu boppam déedéet daf ko euh, daf ko tasaare ci biir dëkk bi loolu mu tasaare ci biir dëkk bi ñoom madame bay ci la am 5 projets yooyu. madame Mbaye am madame Mbaye amul 5 projets kese de. Hmm. amul 5 projets yu bokkul ak 83 projets 5 projets mi ci biir 83 euh, euh, projets yi la bokk. kon da nga jël 83 moins 5 projets mu des ñaata ñu tasaare ko ci yeneen jigéen ñi kon moom am na lu ñu ko beral loxo parce que am na ñoo xam ne benn projet moo dugg si ñoom moom nag moo tànn 5 projets yooyu seet ñu mu ko jox. d'accord loolu mooy femme leader bi mais dégg naa ku ne. madame Mbacke nee na ñu duñu ay femmes leaders non non femme leader mooy femme yu porte projet bi il faut que ça soit clair moo tax am na yoo xam ne du ma ci dugg man ko ma xam dama polémique madame mbay sama kilifa la sama mag la euh, et cetera et cetera mais nag vraiment tamit su dëgg bu jotee il faut que ñu wax dëgg ñun ñëpp président la ñu àndal madame mbay dañ ko def au conseil ñu ànd ak moom battre campagne. SEDAF boobu rencontre bi ñu njëkk def ci au conseil SEDAF lañu ko defee ci kaw Aly Ngouille Ndiaye ñëw ñu toog waxtaan ñu ànd ak moom dem ci àll bi néew ma ci liste bi comme ni ma def nii rek ànd ak moom dem ci àll bi dem ay Sadio yëpp battre campagne ba mu gagné mu nekk au conseil li ma am nag mi ngi koy bokk ak nit ñi nit il faut nga dëgg wa sëgam mi ngi koy bokk ak nit ñi mi ngi def mais lii la demee. Mm-hmm. te pourtant woo na ma téléphone ba ma expliqué ko. moom nekkul woon ci réunion bi dugal nañ ko ci xam nga bi may créé groupe whatsapp boobu sax bugguma amul kenn ku ma woo téléphone ni ko maa ngi créé groupe whatsapp ndax mënu ma leen woo te c'est un peu urgent mënu ma woo ñëpp mm-hmm. dama kuñ dugg ajouté ci groupe da nga ko xam groupe moom bu ne si dañ koy xam mais ñëpp dañoo dugg ci groupe bi ministre de la femme toog wax ñëpp dégg projet bi ni mu war a demee et cetera et cetera noonu lañu ko déroulé ba fi may wax ak yéen ñun Touba itam ñu am 16 femmes leaders mais xoolal jigéen femmes yi euh, yi yi yëngatu Touba mais 16 femmes leaders mooy femmes yi porté projet yi noonu lañu ko tuddee c'est purement technique mm-hmm. ñun ñun du ñun ñooy wax ni kii leader la kii du leader ku ne xam nga xam nga ni nga mëne même financement yooyu noonu au niveau de Touba dañuy gis coow yi des fois da ci euh, bari da gis jigéen ñu xam ne dañuy frustré wu dañuy wax daal financement yi dañ ko am ñu ko jagleel ñoom gisuñ ci seen bopp bëggoon nañ daal nga leeralal ñu dëgg-dëgg yooyu ñi nga xam ne war na mën nañ ci bénéficier wu naka lañ ci mën a bénéficier wu au niveau y a beaucoup de polémique aussi. xam nga du Touba rek. bu la kenn nax jigéen fuñ daje coo am. xaalis fu mu génn coo am. li olof di wax naan daaju dañu daju suuf. ñëpp mënuñoo amandoo. ñii dañuy am tey boo lëggee am. président nag dafay dugal 500 millions financement yi. 500 millions la. ñu remercier le ministre de la femme tamit mu jaarale ko ci yoon. nee naa la c'est purement technique. financement yoo xam ni amul étude de projet. financement yoo xam ni amul garantie. te dañ la koy veef directement. amul compte bancaire booy ubbi. amul dara mais financement yi pour liggéey la. financement yi pour liggéey la amul compte bancaire amul dara mais nag. niñ ko defee da ngay boot ay nit par groupement la ñuy financé c'est pas individuel. Mm-hmm. groupement de femmes la yow yaa yaak euh, madame Mbacke ngi nii moo nekk ci kanam Fatou Ndiaye nekk nii ci kanam am na yeneen ñeent juróom-ñeenti nit di bokk ak ñoom. Mm-hmm. projet bi dañ leen koy jox 500000 yi ñu xool ba xam dañ ci defal aviculture wala dañ ci euh, def élevage 500000. Mm-hmm. wala dañuy def nañu def nañu formation def nañu transformation fruits et légumes ba xam loolu lañ ciy def et cetera cetera. kon kon vraiment euh, euh, loolu mooy financement yi ñuy wax rek nag euh, problème bi ci nekk benn problème yu ndaw la mooy dañ koy weef wala orange man te ñoom ñooy demandé ci fiche yi leen di jox ba xam da nga ko bëgg recevoir ci Wave wala Orange Money am na secretaire bi mi ngi ci kaw trésorière bi mi ngi ci présidente baa ngi ci mhm. message bi ñëw ñoom ñett ñëpp ko jotandoo parce que fi mbooloo la secretaire bi na jot message trésorier bi jot message présidente bi jot message mais présidente bi mooy récupérer xaalis bi bu ñëwee teg ko sur la table mais waxuñu benn xaalis nga jël ko def ko ci poche wala ci pochette activité bi ma def bërki démb man am naa ci ñaari projet yu ma xam ne sama zone pour ñoo ma ko jox bi ma ñëwee ñaari projet yi moom laa doon def ci ay enveloppe xool groupe de bale yi ñu ko ñu def ko seen caisse crédit revolving seen kalbaas yi comme ça dina jur bu fay jotee ci la jël fay dañ koy tasaare mais nag coow mënut a ñàkk ci financement financement 500000 yi moom ëppoon coow gars yi def nañ fi marche c' est c' tout à fait normal. xaalis ak ak jigéen ñoo yam coow kenn mënu koo bañ. waaw voilà mais lépp ci dëgg. Ah, am nga fi ay euh, projet ay bëgg-bëgg yoo xam ne am nga ko fi en tant que madame Mbacké. Euh, wax nga dëgg mais bala ma laatoon ci loolu. damay sant euh, ki waral financement yi coow li coow li ki ko waral la le président Macky Sall daf ñu recevoir au palais. am ñu lum ñu dig lam ñu digoon def na ko mais mu teg ko ci loxo yu sell yu wóor yu baax mi le ministre de la femme de la famille du genre la protection des des enfants mmh. madame Ndeye sel Diop Dieng muy jigéen joo xam ni yaay jaboot la muy jigéen joo xam ni bi mu jëlee département ministériel boobu ñun waa Touba la njëkk recevoir te lu muy def rek Touba gis na ci boppam ndax xam na ni kenn ëpp ëppale ko ci dëkk bi Sénégal yëpp la fi nekkal ah bu demee ministère am bi man damay toog ba si yàgg man ni Ndeye Saly tey bu demoon ba euh, yàlla na yeex euh, nekkatul ministre lan la ko ministère bi apporteel soxlawu ci nam ñu ko waxee soxlawu ci jaaro soxlawu ci mbubb yëfi boppam da ko ciy def. waaw kon kooku duñ def dus di ko sant di ko gërëm te xam ne bàyyi na département Mbacké xel ci bu wér te loolu boo defoon micro trottoir di nga xam ne jigéen ñi wax nañ ko. Mhm. question bi ma nag man damay politique. Mhm. te defe naa ni. Euh, Euh, euh, kenn dàqumaa politique dëkk bi waaw man ni dàqumaa politique dama ci boole nag yar ak teggi ndax ci laa judd amul benn gouvernement boo xam ni temps wu la ba euh, Macky Sall te gisoo ci mbokk ma jege jege bu ci nekk ñun suñu kër ngaay dañ daan togg añ ba pare duñ ko lekk ndax politique am ba nekk na maire pendant douze ans kon man dama yéex a dugg ci politique mais xam naa lan mooy politique mais dama koy def dans la dignité Euh, ambition dama ko am parce que nag kuy politique euh, c'est l'art de gérer la cité ndax man am naa sama salaire fonctionnaire la bu doon man dong euh, ak sama njaboot liñ ci yor mën naa ci dund ba macha allah te je touche du bois j'ai mes enfants qui travaillent aussi loolu dama koy sante yàlla di gërëm sama borom kër ci loolu mais nag politique da nga bëgg ambition laa bëgg te xam naa fi ma jëm te am na lu ma yaakaar tamit ca fa ma jëm. ndax xam naa ne daal nañ bàyyi noonu rek ne xam naa daal moom macha allah politique moom defe naa daal. Euh, nañ dem ba ci kanam rek xool li ci kanam waaw li ci kanam rawali bët rek. Euh, hmm. bëggoon nañ waxtaan bi gën a yaatu lool waaye jot bi barewul ci terrain bi nga jógee ci nga jëmaat euh, dañ lay sant rek di la gërëm ci sa disponibilité boo amee kàddu yoo xam ne moom ngay tëjee. xanaa sant ñëpp rek di balu àq ñëpp. di baal ñëpp àq ndax liggéey bi metti na lool des fois nit ñi duñu comprendre mais yow mi jiitu yaay comprendre parce que dara su ñëwee ku yaakaar ne war nga cee am te jotu ci dina wax kon yooyu ñun dañuy xam ni lu jaadu la di wax rek ni dañu nekk ci période campagne électorale tey mu jeex te ñun ñëpp dañoo bokk loo xam ni mënuñu ko séddoo dañoo bokk Touba. te mënuñu koo séddoo ñun ñëpp ay dëkkandoo la dañu ngay xool sax ñaa ñi bokk benn kër te bokkuñu euh, fu ñu jëm sur le plan politique may def appel rek sama moroom yi euh, sama mbokk yi rek ñu campagne bi dina jeex tey su jour vote bi jotee ñu voté ji ku nekk ñib ñibbi waa tranquillement sa kër ndax euh, dëkku sañ Touba la ñu nekk mm-hmm. bu ñu nekkoon beneen dëkk sax coow waruñu waxtu ma la dëkk bi ñu nekk mm-hmm. Euh, sëñ Mountakha Bachir ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal sunu bunt ci sëñ Touba muy Daaru Musti mm-hmm. bu ñuy ziare sëñ Bas Bas Anta Ñang ziar sëñ Mbacke Daba Sarr mm-hmm. dañuy ziar xalifa sëñ Modou Awa la mu sëñ Xaadim doctor mm-hmm. di ziar tamit sama borom kër bu baax bi sëñ sama Samad im sëñ Modou Awa Balla imaamu Daaru Musti euh, moo ma may def yenn yi ndax man ku ma xam-xam ci ndigal laay woy tey su ma woon bàyyil tey ma bàyyi. mais damay woote rek surtout ñu jigéen ñi bu ñu politique bi xaajale sunu doom yi dañu moytu violence yi ndax euh, li ñuy leen di jariñ du Macky Sall la leen koy jox li leen di jariñ du Sonko moo leen koy jox mais liggéey moo tax ñu koy am président Macky Sall nag moom la yaa teg ci bopp réew mi moom moo war def condition yi xale yi amee liggéey te loolu defe naa mi ngi ci. te am na lu mu jëmbat biir Touba am na lu mu def biir Touba may wax rek ni ñu suñu candidat yemul ak yeneen candidat yi ñoo yor ñoo yor candidat yu baax yi. ñoo yor candidat yu am solo yi ñun ñoo yor candidat yi nga xam ni yar ak teggi lañ leen xamee te bu ñu demee assemblée nationale gars yi nañ leen xam bu baax. Mm-hmm. maa ngi balu ñëpp àq di baal ñëpp àq. jërëjëf jëf xam naa loolu nga tëjee moom euh, nañ ko def bonus rek comme nee nañ ñoom ñoo yor candidat yu baax yi <laughs> ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm euh, madame Mbacké ci disponibilité bi vraiment yombal nga ñu ko wax dëgg yàlla. di leen sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a ñu doon seetaan euh, ci Sénégal seen émission grand public la woon. Thier l'original nekkoon ci cadrage bi toujours ci coordination bi As Events wala Bouba Ndour <laughs> di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.